ndax fal ngeen sant yéen ñaar ñepp nak oh, ya ay ya ay sotu jof fal eh, la ilaha ya yaa sotu jóob faal fi nga dugg waroon fi dugg de fi nga dugal sa tànk bokkul fi nga laal sa loxo bokkul oustaz muudu fal la ilaha illallah oustaz mi nga xane bo boo taaj boon mu ne wolay soko xure mu gàcc la moom ngay jema a tontu na la <laughs> nee dal du wax ak koo xam ne day liggey ci télé ñu jàpp ko frigo go frigo ko frigo go bam mu seddu guy mëntu na génn ci télé ba ñu xam ne dañ ko bëgg a dàq mu ne légui ni ngeen di def moy deen ma jox xaalis bi ngeen bi mu liggéey ndax di contrat la woon ñu jox ko ba la ilaha illa laa mu lekk ko riba la karam gi ñewé ko riba la te neena na kontaan ci Sonko ak Diomaye ndax régime bi fi nekk nga xamne ne da daan jox li nga xamne ni moy ay mars nga ci daan dur waye jub ak jubal jubanti gii Sonko wax arrangé na ko nee na Sonko ak Diomaye am na lu solo ci réew mi ndax surtout Sonko sax la ilaha illallah nee daa Sonko daal mi ngi koy commencé neex daal ndir ful la ji rek ñaaree ba Oustaz Modou Fall dem na wax ci abonné yi de yéen ñi nga xam ne abonné ci ñoom yaa Aïssatou Diop Fall tudd turam nag maa ko tudd waaye ñëpp xam ne nag yaa Oustaz Modou Fall yaa Aïssatou Diop Fall ngay waxal nag moom waaye nee na képp koo xam ne dem nga abonné ci moom sa wërsëg tëju na noo nee damaj abonné bi rek mooy sa wërsëg day tëju ndax tabia àndul te am na ñoo seen tabiya dafa lëndëm loolu nag ko bëgg a xam ne da dem sa ñi nga xam ne ni ñooy sëriñ si di di ñaan ñu leeral lan la nee na daal yaay sëriñ Diop Fall daal daal jommi jombe la def fi mu ne ndax ak douze këram léegi nag sëriñ si ba xam ne nii ci la yaakaaroon nag nee nañu kërëb ba juutu te ñoo ñoo ko doon dimbale <laughs> mais daal li ma la xamal yi leen def Fall ngeen sant te gis nañ fi aada boo ak Oustaz Modou Fall doon fi xuloo yaay Adamo moo réglé li nga xam ne nii mooy situation bi ndax moo dem ba xamal ne Adamo ak Oustaz Modou Fall ay mbokk lañ mu bokk waaye yéen ñaa ñëpp na Fall ngir sant te yow Oustaz Modou Fall sa Fall mi ngi kebe maire yaa Aïssatou Diop Fall yow sa fu mu bokk leer na ma leer yàlla daal ne moom ay mbokk ngeen moom ndax Fall ngeen sant yéen ñaa nag